asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci jàngoro yu coronavirus benn nit bu ñuy njortu ni da ko am fële ca Cap Skirring ab touriste français la am lu ëpp juróom-ñetti fukki at dafa wane bépp màndarga feebar bi ba tax ñu ber ko ber bi du moom képp képp kuy liggéeye ci hôtel ba mu nekkoon ak kiliyaan yi ñoom ñëpp dañ leen a tegee côté di xaar résultat prélèvement yi ñu yebal fii ci Institut Pasteur bu Ndakaaru flagrant délit di dooraat tey jëlee ci euh, tribunal bu ndakaaru ginnaaw bañ ko ajee benn fan kepp ministère de la justice moo jëloon dogal bu ni mel ci diirub ñetti semaine waaye ñi yëngatu ci wàllu woowule dañoo jàpp ni bu wëyee dafay am ay njeexital ci kaso yeeg ni mu sakkanee ci ay nit G7 jël dogal ajandi bépp activité syndicale teg ci def loxo ci poste dimbali gouvernement bu Sénégal ci xeex jàngoroy coronavirus syndicaliste yooyu lay di woo bokk ci ñoom dugal loxoom ci xeex boobu boobule euh, Covid 19 ba léegi ci àdduna wëngal këpp réew yi ku ca nekk di jël ay dogal yu ëpp doole boobu ba léegi ngir fexe ba jàngoro bi bañ a law ñu ci bëri tëj seen i frontière aérienne wala sax nag toog seen kër ñoom ñëpp euh, ci jamono ji lu toll ci juróom-ñaari junni wala lu ko ëpp ci ay doomi aadama ñoo ci faatu téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay réew la nekk. leneen ci xibaar yi muy dagg garab ci anam yu uh, lew uh, ci anam yu jaarul yoon uh, fële ca bët saalumu réew mi ca Jalokunda ca frontière ba ca Gambie ay trafiquant la ñu bett ñuy jéem a daan ay xay ay garab yu nekk foofu le dañoo mujjee daw bàyyi li ci des ñu ubbi ca ab l'enquête xool ñan ñoo def lu ni mel loolee lépp ay tënk la mbokki ne suuti ñu yaatal ko ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek jàngoroy coronavirus ak ñi nekkoon ca bateau Aline Sitoé Diatta bàyyeeko woon ca Ziguinchor egg ca port autonome bu Dakar démb te ñu beroon leen ñoom ndax dañ doon njort ni benn couple touriste dañoo am jàngoro bi waaye test yi bañ ko defee dafa négatif amuñu jàngoroy coronavirus naka noonu équipage baak ña nekkoon ñëpp ca bato ba bàyyi nañ leen ñu mën a dem ginnaaw benn fan ak lu teg bu ñu nekkoon ci bateau boobule fële skiing nekk ab station balnéaire maanaam touriste yi lañ fay ñëw bëri ba dee euh, benn touriste français am lu toll ci juróom-ñetti fukk at ak euh, juróom-ñett moom lañu ñu ber euh, ci hôtel boobule ndax dañuy njortu it dafa am jàngoro bi ber bi du moom képp ndax bépp client bu nekk ci hôtel boobule ak personnel bi tam dañ leen ne bu ñu génn bu dem seen kër nañ toog foofule bu ñu sukkandikoo ci médecin chef district bu aussi usuy nee na am na ay prélèvement yu ñu jël ci touriste ñenn ñi euh, jël ko indi ko fii ci institut Pasteur bu Ndakaaru ñu ngi xaarandi euh, résultat yi ministère de la santé maanaam ministère bi ñu dénk euh, wérgu yaramu askan wi démb la def ponk bu mujj taxaw seetlu ci jàngoro bi ak fiñ ci toll fii ci réew mi ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo ko am mën nañoo jàpp ñaar ñi nag moom wér nañu loolee la ñu wax te seen wérgu yaram ñu ngi koy topp bu baax a baax ministre bi nag ne moom Abdoulaye Diouf Sarr di ñaaxaat sénégalais nañ leen ko ci wàllum cet mooy tëndiku jàngoroy coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr li ñuy déglu ci micro Pape Fary Gningue ak Amadou Ba. ci test yi ñu jot benn cas moo ci positif ci juróom ñeenti kaa yi xamante ne testé nañ ko bon kenn rek moo ci positif kooku benn français la boo xamante ne am. mu ngi am 67 ans yegg si Dakar fii le 7 mars 2020 mi ngi fi yegg si par vol Iberia bi ñu gisee nag ne mbir mi niru na ne dafa am jàngoro ji équipe technique yi dem nañ seet ko jël prélèvement ba pare yóbbu ko def isolement bi ñuy wax ne fi ñuy wax ak yéen. ñaar fukki kaa ak juróom ñaar la ñu confirmé gul si ñaar fukki cas ak juróom ñaar yooyu am na ñaar ñoo xamante ne wér nañ si niñ koy defee bés bu jot tey jii tamit ministère de la santé dina defaat ab taxaw seetlu xool jàngoro bi fan lañ ci toll fii ci réew mi bu ñu demee ba maatam maatam nga xam ne daanaka soriwul dara frontière ba ak Mauritanie foofee comité régional de gestion des épidémies mi ngi gën a dooleel dispositif ba ñu teg foofule ay jumtukaay ngir raxas loxo teg nañ ko ci bépp diwaan bu nit ñu bëree bëri di dajaloo foofu foofule ay takk derit ñu teg leen fa ci diwaan yu bëree bëri loolee mu di ay dogal yu ñu jël dolli ko ci ñu jëloon ba noppi fexe ba jàngoro bi bañ a law foofule ci jamono ji nga xam ne gouvernement bu Mauritanie dafa jël dogal juróom-ñeent ci fukki bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy jaaree ca maatam dugg fii ci réew mi ñoom dañ koo tëj ci Bandel Niang moo ñu teewal ca diwaanu maatam donte ba léegi amagul benn cas coronavirus ci gox bi bile waaye kilifa yi fi toogal nguur gi takku nañu ba dëgër fas yéene nag yokk jumtuwaay yi ñu amee ngir ko xeex ak jàngoro gi di Covid 19. ñi bootu ci comité bi ñu samp ci gox bi mu war a saytu lépp lu jëm ci wàllu ay épidémie daje nañu seen daje bu njëkk gannaaw bi jàngoro ji duggee ci biir réew mi. tey nga xamante ni jàngoro baa ngi sunu biir réew il faut ñu changer doxalin. moo tax dañuy renforcer lépp luy mesure de prévention ci kaw loolu nee nañ ci fi nga xamante dugg ci gaaru routière mu mën a raxas ay loxam waaye tamit koy booy dugg ci structure sanitaire yi poste de santé yi il faut également nga mën a raxas say loxo ci kaw loolu yit bi ñu waxtaanee wane nañu que tey feebar bi dafa am fi nga xamante ni mi ngi commencé na fa law ci suñu biir réew diggante gox boobu ak région de Matam il faut ñu seet benn tëli moo leen relier bu ñuy wax rn RN3 boobu dinañ am ñaari dispositif yu ñu taxawal fële ci Ranérou ak fi nga xamante ni moom mooy duggukaayu Matam mooy Ourossogui foofu ñi xamante ni ñoom ñoo ŋànk sécurité de contrôle routier bi dinañ leen jox dispositif de lave mais waaye tamit dinañ mettre à leur disposition li ñuy wax thermoflash. ña fare ca bële réew di suñu dëkkandoo ya nekk ca Ganaar di Mauritanie gannaaw bi ñu enregistré seen cas bu njëkk yeewu nañu tëj seen frontière maanaam pàcc bu gën yaatu ñaari régions yi di Kaydi ak Magama Séex ak région bu Matam. il faut ñu xam ni que du suñu réew moom moo tëj frontière am moom moo mel ni que dafa wàññi dem beeg dikk bi diggante ñaari réew yi ndaxte nag réew bu nekk souveraineté am permettre na ko mu tëral stratégie stratégie bi sunu voisin yi tëral mooy wàññi dem beeg dikk bi. donte ba léegi kaa amagul waaye Covid 19 moom noppi naa indi pëccëxoo bu rëy lool ci xelu askan wi fare ci dooru Matam yi nga xam ni ña yore njaboot ya ba fu mu ne nii moo di immigré yooyu nga xam ne ci gën a bëri ñu ngi Europe. fii ci ndakaaru nag ginnaaw benn fan ba ñu aji eh, lii di audience yi ca tribunal flagrant délit eh, dooraat na tey jile waaye du eh, waaye ay nit kon duñ ca teew mu nar am ca salkat mi ñu jàpp ne moom moo gën a ngand gën a féex dogal le dañ koo jël démb ginnaaw ab réunion bu dox ci diggante baro beeg magistrature bi liñ ci namm mooy bañ ba kaso yi di gën a fees ak nit ndax bu ñu dakkalee audience yooyu le looloo nar am ñu jàpp ni dogal bi ministre de la justice jëloon fay acc audience yi ci diirub euh, ñetti semaine dina am ay njeexital yu méttee métti euh, ci kaso yi euh, ci wàllu jàngoro jàngoroy coronavirus bi ba léegi ak jàngalekat yi G7 di mbootaay bi ëmb syndicat yi gën a am doole ci wàllu woowule dugal nañ loxo si poos génn benn million jàppale ko ministère de la santé ngir xeex jàngoro jàngoroy Covid 19 boobule ñoom syndicat jàngalekat yi it ne lépp luy grève jamono ji lépp luy activité syndicale dañ koy ajandi fii lekk jàngoro bi di jóge ni ñuy woo képp ku bokk ci ñoom tamit ñu booloo nekk benn pa dànk ànd ak euh, état bu Sénégal ñu xeex jàngoro jàngoroy coronavirus boobule G7 doon amal ab conférence de presse tey jile ci suba Fat Bintou Conté Diafara Ba ngir jàppale nguur gi mu xeex lii nga xam ne moom mooy jàngoro coronavirus bii nga xam ne jamono ji mi ngi ci suñu dëkk bi lee enseignants yi bokk ci kuréel bi ñu naan G7 nga xam ne sept syndicat moo ko lënk fas yéene dugal seen loxo ci xeex bi lee ba joxe lu toll ci benn million ci suñuy koppar fas yéene ko jébbal tey ki nga xam ne moom moo di seen jëwriñ. booy digle sangu da nga siy jiitu loolu moo tax ñun syndicat yi dina tey. dem jébbal suñu ministre de l'éducation nationale benn million jiital ko si kees googu nga xam ne woon waxaan nañ ko léegi te ñu baamtuwaat ko mooy doon suñu contribution si effort bi nga xam ne effort de guerre la contre cette pandémie. balaa boobee sax ñoom waa G7 ñi ngi xam ne ni dakkal nañu bépp grève boo xam ne sooboon nañ ko ba jimmi jamono. suñu xoolee tamit. lii nga xam ne mooy jàng ak njàngale nga xam ne dafa am solo ci am réew te nga xam ne dafa war a bokk ci di taxaw tem di yëglu di yëgale su suñu xoolee tey li nga xam ne jàpp nañ ne timit dañ kaa war a jiital ci suñu taxawaay G7 décidé dakkal bépp garew boo xam ne mu ngi si woon. ñuy rafetlu nag école ak université yi nga xam ne nguur gi tëj na ko ndax jamono ji daf ko laajoon wante nag bu ñu sañoon ñi nga xam ne ñoom ñooy way juri ndongo yi ñu xoolaat bu baax seen i toggaayu doom ak tamit jàppale xale yi ci kër gi lee ngir ñu bañ a fàtte. jàpp nañ ni xale yi teyewuñ leen rek kër ga école yi tëjuñu ko ak université yi pour que xale yi toog il faut que xale yooyu parents d'élèves yi fàttaliku ni tey. am nañu responsabilité bu bees mooy ñu encadre xale yooyu ñu mën a jàng bu ñu toogee seen kër parce que nag li jëm ci dëkk yi nga xam ne mooy ville yi mais am nañu la technique et la technologie l' internet à partir de ce moment nañu fexe oriente xale yi ba seeni recherche yëpp jëm ci seen mbiru njàng. waa G7 nag seen jàppale gi ñu jàppale nguur gi duñ ca yem ndax ubbi nañu ab benn fonds boo xam ne ñu ngi ko tuddee fonds de solidarité du G7 képp enseignant lu waaye am ñoo dugal fa ngir ñu gën a yeesal seen dimbal ci ki nga xam ne moom mooy nguur gi. ba léegi ci xeex jàngoro beeg beneen mbootaay bu indi euh, jàppandalam muy amical bi ëmb administrateur civil yi nekk fii euh, ci euh, Sénégal ñoom ñu jol ay produits lu ci mel ni ay gel hydroalcoolique ak ay masque jébbal ko ministère de la santé xëy mag yi ci koom mi ngi toll ci ñetti millions Abdoulaye Diouf saar di app mbir mu muy rafetlu bu baax a baax di wéy itam di leen ñaax ñeneen ñëpp kon ñu dugal seen yoxo bu baax a baax ci xeex boobu le dañ ciy déglu Juliette moom mi jiite amical administrateur civil yi ci micro Mar Dieng euh, li tax ñu def ko nag ñaari mbir la président de la république dafa lancé appel ne doom doomu réew mi yëpp nañu indi seen soutien pour que lii ñu war a jàkkaarloog muy coronavirus ñu jàkkaarloog moom ba man ko daan ko génne ko ci réew mi donc dañoo engagé woon ci kanamu président ne combat bu muy def ngir intérêt réew mi dinañu gis ci wetam loolu bokk nañ ci li tax ñu ñëw def si lii waaye tamit ñëw nañu en tant que citoyen simple parce que tey kuy citoyen kuy sénégalais rek danga nga a sol sa tenue combat ñëw jàppale personnel de santé bi personnel de santé bi warut a wéet ci combat bi ñu ñëpp ci war a jàpp ndax suñu combat la ñun population bi. di leen wax ne seen taxawaay dafa rassurer Sénégal parce que dëkk dafa am lu ñuy wax nation mu nekk loo xamante ne du lu ñuy laal souvent sax ñu bëri ñu xam mooy lan. mais si circonstance bu mel nii ngay xam mooy la parce que nit ñi dañuy booloo bokk pas-pas bokk jëmuwaay te ñi xamante ne ñoo gën a mën a incarner état bi si sens boobu mooy ñi xamante ne ñoom la ñuy wax socle bi bu lépp demee ñoom ñoo fi des te mbir yi bon dëkk euh, bu ñu ñëwee tey joxe lu mel nii te partout si état bi da leen fay fekk bon dëkk du benn ministère rek mooy ñëw mën naa wax ne réew mi rek réew mi yëpp ñoo ñëw tey. Euh, li ñu euh, song nag lu ñu war a daan la parce que Sénégal moo taxaw mais ñëpp couche yëpp taxaw te pour daan ko nag il faut moom un élan communautaire parce que mbir yi dafa war a dem a dem ba si suuf a suuf ñëpp dund ko bu ko defee ennemi boobu du mën a jaar fenn bon maa ngi leen di remercier bu baax ne niñ koy defee bés bu jot dañuy dem ca ministère de la santé fekk ji fa Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi lay euh, fay soxna Naata mbay xibaar yu mujj mu ñeel coronavirus foofu ca ministère de la santé Cheikh fii lekk jëwdin bi ci boppam di ñëwaat di jàkkaarlook taskatu xabaar yi. Euh, jërëjëf euh, soxna Naata mbay ginnaaw ba mu la nuyuwaatee nuyu mbokk téléspectateur yi nga xam ne euh, jamono yi ñoo ñuy teewlu à travers la télévision Futur Média xam nga ne jàngoro ji di coronavirus coronavirus nag jamono ji bépp sénégalais daal na ci sopp loxo moo xam nga yëngu ci wàllu politique wàllu caada ak yeneen yu nu xeetoo jamono yi nag fiile ñu ngi fi doon dalal ki nga xam ne moom moo di Omar Gueye moom mi le doon xam ne rek ne dafa ñëw en tant que maire daal di jébbal ay matuwaay lu tollook ci valeur Euh, ñaar fukki million ak juróom keneen itam euh, koo xamante ni euh, gis nañ ko fi soxna naata di jëriñ ji dénk wàllu alam gi di rek Abdou Karim Sall ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di femme parlementaire yi nag jamono yi ñu ngi fii ci ministère de la santé ngir jëbbal se seen ak njàppandal wala boog taxawal matuwaay yoo xamante ni dina mën a tax wala boog doll Abdoulaye Diouf Sarr mu mën koo teg ci matuwaay yi nga xam ne rek mi ngi fexe Sénégal yi daal di moyu jàngoro ji di coronavirus mu mel ni ñëpp ci Sénégal ñu ngi def lu ni mel ku nekk moo xam anam ba nga xam ne rek euh, noonu nga koy euh, defee euh, ci fàttali rek ni ki démb point de presse bi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci ministère de la santé lu tolloog ñaar fukki ñaar fukki ñaar fukki nit ak juróom dal dañuy am jàngoro jii di coronavirus fii ak ngoon itam ñuy xam rek ana yan test la Institut Pasteur daal di jukkee ci bile jàngoro ñu baay la nga wéyal xibaar yi fii ngoon lépp loo xamante ni dafa ruusandi ci ay xibaar dañ ko dikkal daan ko diktal mbokk euh, téléspectateur yu télévision Futur Média Diop nekkoon en direct foofee ca ministère de la santé ñu wax ci wàllum marché bi ndax am na ñu bëri ci sénégalais seenu seenum njàqare mooy ndax dund dina woy di am ci marché beeg jafe-jafe yi ci wàllum koom bi coronavirus bi jur ministre bi ñu ko dénk di Aminata Assome jaata tey jëlee ci suba rek mi ngi doon am benn ndaje ci wàllu woowule mu ne eh, xel mën naa dal eh, fii ñu toll ci li nga xam ne moom la nit ñi di soxla lu ci mel ni eh, ci wàllum dund Aminata Assome Diatta arrêté euh, buy euh, wax naka la ñu war a jaayee gel hydroalcoolisé yi nga xam ne euh, ñëpp a ko soxla jamono ji Mame Birame Diouf ak Pape Sangone Mbaye ñu nga woon ca ndaje fii ci Sénégal lu ñeel nag denrée première nécessité yi muy kon dundu jenn ci ay produits yoo xam ne ñu koy soxla jafe-jafe amu ci ministre du commerce di koy xamle ci teewaayu mbooleem acteurs yi consommateurs ak commercant yi mu leen di woo nag ngir ñu amal doxalin bu mucc ayib ngir approvisionnement ci produits yooyee bañ a am jafe-jafe. dañoo bëgg sénégalais xam ni lépp li nga xamante ne war nañ ko soxla ci seen dund euh, am na fi lu doy li ñu war a moytu moom mooy euh, di dem di jënd euh, jënd goo xamante ne jaru ko ndax dafay wàññi stock yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk te loolu mooy indi spéculation ministre du commerce profité ci ne am na comité de veille gu ñuy taxawal muy ay mesures yoo xam ba tey dinañu ko saytu bu baax donte sax produit yi nga xam ne lay jéggaane ci bitim réew bokkul ci la nga xam ne nii tëj nañ ko ci frontières yi waaye teewul dinañu anticiper ngir rek lépp bañ a am problème. comité boobu am na ay démembrement ci région yi ndax am nay gouverneur yoo xam ne wax nañ leen déjà nañu xool na la ñuy eh, liggéeyee ci euh, xool niveau de stock bi. ba nga xamante ne benn euh, produit du manqué ci région yi. li nga xam ne bitim réew lay jógee bu fekkee ne ñooñu ñu koy jox dañu am problème ci feebar bi ragal naa ne quantité bi mën na diminuer cependant projection bi wax na ne au moins quatre mois war nañ ko mën a am ci ceeb bi suukar bi moom fii lañ koy bayee mais nag point de vigilance bi mooy que ñu jàngatee ci ne. li nga xam ne moom la ñuy produire localement nañ ko gën a yokk. geneen ndogal gu mu jël muy nag ñu am régulation bu mat sëkk ci njaayuma gel hydroalcoolique yi. li nga xamante ne moom mooy euh, gel hydroalcoolique am na benn arrêté boo xamante ne acteurs yi bu ñu ci waxtaanee ak samay département dinañ ma ko proposer ndax ñoom ñu ngi dajatee ci ngoon pour proposer ma euh, benn arrêté donc dinaa ko signer ba nga xamante ne produit yooyu dootul. nekk euh, du ñu si fixé du ñu du ñu du ñu si abusé. waxtaan yi dox ci diggante ministère du commerce ak mboolem acteurs yi ubbeeku lépp rek ngir mesures nga xam ne jël nañu ko ñu mën kaa matal. waa jàngo bi fii ci Sénégal ñoom nag jël nañu dogal bépp xew-xew ci wàllum diine boo xam ne daal nit ñi dañ fay teew lu bëree bëri dakkal nañu ko dootul amati ndax jàngoro yi coronavirus lee ginnaaw ba ñuy jàkkaarloog taskatu xabaar yi évêque yu Sénégal ànd ci ju interdiocésain national nee nañu aj yi ñuy def jamono ji aj nañ ko du am loolee la ñu wax église bi di woo képp ku bokk ci ñoom ñu toog seen kër yi teg ci di ñaan ñu ne ngir jàngoro boobule mën fee jóge. Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye gannaaw ñaari communiqué yi ñu jot a fësal mu ci xeex lii di coronavirus province ecclésiastique bu Dakar nag tase na ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ngir wax ci li nga xam ne ci ay mesures yu ñu jël ngir xeex bi feebar. nage bi ñu togaloon war jaare Israël Rome ak Lourdes ca France. dàkkal nañ ko ba nañu taxaw na ngir gunge nguuru senegaal ci lépp aju ci wàllu xeex lii di Covid 19 évêque ndakaar yi di ñaan askan wi ñu dàkkal yenn xumbite yi ñu doon amal. ci fi ñu ci toll dañoo war moytu lépp li di mbooloo mbaa niiraan mu bare su kenn ci suñuy mbokk wàññeekoo maanaam su amee dëj ñu ngi ñaan ñépp. ñu bàyyi rekk njoboot gi ak mbokk yi gën a jege ñu gunge ndem si yàlla ba ci armeel ya évêque Sénégal yi di ñaan ñi nga xam ne rekk ñooy fidèles yi ñu sax ci seen ngëm jamono ji nga xam ne rekk daanaka ñu bari tiit nañu fexe tamit ba def kem kattan ngir fësal saa su nekk seen dellu ci yàlla ngeen farlu ci ñaan gi ànd ak seen njoboot rawatina ci bésu dimanche ngeen farlu itam ci ñaanu sapaleet bi ngeen jublu ci gën a rabaat baatu yàlla bi leen jàngu bi di waajal bés bu nekk. évêque Sénégal yi ñu ne nag dinañ def kem kàttan ngir ñaax ñi nga xam ne ñooy fidèle catholique yi yu gën a dugal seen loxo ci lépp loo xam ne dañ ko tere fàggu tamit bi la feebar. ñu dem ci Kaolack ak euh, fi nga xamante ni mooy euh, bërëbu feexlukaay wala dalluwaay yi muy ay hôtel ak euh, lépp matukaay bu ñu jël foofu le ngir xeex yu coronavirus direction réglementation touristique doxantu na yenn ci foofu xool ndax ñu ngi wàccoo ak loolee ñu jël ni ay dogal ñu ne nag ñu ngi koy respecté bu baax a baax waaye directeur général bi di woo hôtel yi ñu wëy ci wàll woowule rawatina jamono ji nga xamante ni jàngoro bi li mu am ci njeexital ci wàllum koom kenn xamul nu mu toll ñu bëri ñu defoon ay réservation ba noppi dañu cee deltu ginnaaw Ibrahima Diamé Fally Gaye ci ñaar fukk ak juróom-benn hôtel yi nga xamante ni ñoom ñoo am ci diwaanu Kaolack fukk ak benn yi ñoom ñoo méngoog norme CEDEAO ci contexte bi nga xamante ni nag feebar bile di coronavirus mu ngi lëmbee àdduna hôteliers yi nag ñoo ngi jël seen motukaay pour moytandiku feebar boobule ki di directeur de la réglementation touristique di Ismaïla Dione ñëwoon nemmeeku si l'hôtel yooyu le ndax mën nañ leen kon élire ci norme CEDEAO ñoom def nañ constat bi def it évaluation bi. sunu visite bi day tax xool ndax hôteliers yi jël nañ mesures yi te waaye ba léegi kat wax dëgg yàlla ñu ngi gis ni ñoom ñu ngi ciy def ay effort bu baax a baax ndax foo dem da ngay fekk ñu jël ay euh, gel antiseptique teg foofu kuy dugg raxas ay loxoom ba pare aussi ñu ngi gis ni vraiment ñoom ñu ngi bàyyi xel loolu bu baax. donte nekkoon ñoo ngi ciy bàyyi xel ak mesures yooyu lee teewul feebar bi la di coronavirus am na njeexital bu négatif ci tourisme Sénégal enquête bi ñu def ci wàllu wi wane na ne yu bëree bëri dañ leen annulé. waaw boo xoolee feebar bu mel nii maanaam day euh, tourisme day nekk ci secteur yoo xam ne ñoo koy gën a yëg ndax euh, boo xoolee ñun dañu dépendre ci yenn marché émetteur de touristes yi boo jëlee France ay Italie wala fi nga xam ne mooy Belgique ñoo ñëpp di xam ne ñoo gënoon bari li ñuy ñëw fii ci Sénégal waaye tey ak feebar bi dem beeg dikk bi nga xam ne daanaka wàññeeku na wala xaw na sax taxaw donc loolu yëpp day tax ñu bëri dañu waroon ñëw waaye dañu annuler seen réservation ñeneen ñi aussi euh, ci boo jëlee ci wàllu agence de voyage itam ñi nga xam ne dañu waroon a dem ci jaayum billet yi ñoom ñëpp aussi ñu bari dañu annuler seen voyage donc loolu doon daal yoo xam ne wax dëgg yàlla secteur bi dina ko yëg bu baax a baax. teewaayu direction de la réglementation du tourisme li ko taxoon a ñëw Kaolack surtout bokk na ci xool kon nekkin ak anam yi nga xamante ni noonu la hôtel yi lee di fonctionner xool it seen agent yi ndax ñu ngi respecté seeni contrat. ba léegi ci wàllu woowule fii ci Ngor ay ndaw yu ñu laaj dafa mel ni nag ñoom xamuñu njeexital yi Covid 19 bi ba mën a am ci ñoom wala xamuñu lépp sax nag ci kafe bi ñuy faral di jëfandikoo saa su nekk buñ ko wëree doo fa fekk benn jumtukaay wala lenn loo xamante ni daal mën na leen a jàppale ngir ñu moytandiku jàngoro bi moo na ñoom ci seen bopp nag nee nañu xam nañu naka la ñuy def ngir fàggandiku ci coronavirus boobu le reportage ca Ngor Habib Faye Mar Dieng taxe bi saa su nekk day yëpp ay doomi aadama yu bëri te wuute moom nee na dana sàlloo sax ay matuwaayam waaye jamono ji yoru ko benn yoon ci biir otoom teewul itam muy ñaax mbokki dawalkatu taxi yi yéen jàpp lañu ci set bi bu baax yéen taximaan yi ak transport en commun ñun buñ góorgóorloo ci set bi rek mën naa ne dara du mën a dugg suñu réew bokk na ci li ñuy tere dajaloo yi toog waxtaan lii la gis fii ci diwaanu Ngor ci rond point bi ñoom ñi ñëpp ñu ngi toog di waxtaan wër café Touba gi donte sax ñu ci bëri umpale nañ lan mooy coronavirus ak doomu jàngoro bi nan rek lay lawee. waaw déglu naa ko nag si statut yooyu noonu. doon loo xam ne maanaam xam nga ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi koy bañ a bàyyi xel parce que ñu ngi koy def. man de wax dëgg yàlla moom moom gisuguma si loo xam ne war na maa mën a tax ma arrêté sama xëy moom. teewul fii doo fi gis benn yoon lii di ndoxu raxasu saabu buy ne wala sax gel boo xam ne des nañ cay laal ci seen loxo yi ngir ar seen bopp ak la ñuy jëfandikoo di kaasu kafe yi ñoom ñii fa ñu ko wékk fenn dong la. ñun ay Baay Faal lañ xam ñun lii lañ am ñi ñooy suñuy mbokk ñooy suñuy mag ñooy suñuy rakk xam maytu yenn place yi nga xam ne maanaam xamoo fa kenn di joxe sa loxo ñaar mooy boo lekk balaa ngay lekk. nga diw sa loxo yi loo xamante ne tey dina la mën a saafara. amoon na ma yii ñoo rax soo loo noonu affaire yooyu damay fàtt tur bi sax waa teel a jeex man moom saa bu ma xëyee moom dinaa nettoyer sama tarmus ba mu baax moom def li ma war a def. mënta wëy am déet waaye jàngoroy coronavirus gi mi ngi gën di lëmbe fii ci mim tax na xale yi tu tànk yi ñoom nee nañ saa yu ñu xëyee nii rek lañuy def. ba mu xëyee dinaa sangu ba seet raxasu xam naa xam na wante gars yi moom ñun ñëpp a war a maytu nag billaahi may parents ñoom tamit temps yi jénnuñu sax kër ga toog ma yaay lu ma def da defi léegi baay na ka mu ngi la toog ñun ñëpp lañ jar a maytu nag billaahi. waaye yow sa benn kaas yow kasee ko war a naan moo gën ngay maye ñëpp loolu baaxul may chaque jour dana maan ba xali génn daxar raxas say loxo nga moytu wa baax ba xali génn si yoon bi ni ngaa def instant ni ka ka nuyul say dala fa ne daa ko mel genre yooyu noonu say. seeni waajur. donte sax mi ngi leen di jéem a aar doyul mbedd bi ca la ñuy nekk di foo saa su nekk rax ci dolli ku ne la ñuy dajanteel comme nañu toogee fii ak ñi nga xam ne ñoo dikk seen mag yi coronavirus gi des nañ koy moytu ni ngeen ko gisee kon euh, kàddu yi jëpp ngir ñaax askan wi ci naka la ñuy moytandikoo jàngoro bi ñëpp lañ ko jagleel rawatina bërëb yoo xam ne ñu bëree bëri dañ fay daje ci ay doomi aadama ci misaal ca marché central ak quai ba nekk fële ca Tëngéej euh, foofu it euh, dafa mel ni daal nit ñi nañuy doxalee taxu ko soppeeku nu bëri naam jàngoro baa ngi fii ci réew mi am na ab liggéey bu ñuy def ngir fexe ba képp kuy ñëw foofu le tamit nga xam ni jàngoro bi lii ak lii moom moo la ci mën a lor ak naka nga mën a def ngir wala mu bañ a egsi ci yow reportage foofu ca Rufisque Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ca marché central bu Tëngéej ak lii di quai de bi ba daanaka décor bi ñu fay gis bës bu jot moom rek lañu fa fekk gannaaw sax jàngoro di ji di law tarawul nag lii di comportement yi changé wul benn yoon ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite lii di quai de pêche waxtu wi ñi ngi ñaax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fay yëngu kon ñun ñëpp war nañ mën a jël suñu matukaay parce que borom pousse-pousse bi mu ngi fi mool bi dem géej mi ngi fi mareyeur bi mi ngi fi micro bi mi ngi fi kii waas jën mi ngi fi te ku ci ne nit mën na la fi seet si nit man na jóg ñëw di waas ci yow jën kon ñun ñëpp nañ jël suñu ay matukaay parce que feebar bi kenn ku mu dal rek de mën nañu wax ni dina téye quatre-vingts personnes yoo xam ne bu dee dañ fa doon liggéey ñu yóbbu leen au quarantaine di leen vérifier ndax feebar nañ. bu dee ñenn ñi nag respecté nañ li nga xam ne li moom mooy mesure d'hygiène yi ñi ca des nag delloo lépp ci loxoy yàlla. ñëpp a nuyoo macha allah parce que ñun ñu ci bëri moom am na am na ñoo xam ne boobu la nuyoo ñu ne moom baax mais ñu ci bëri nag ñu ngi parce que mooy li ma la rek mooy affaire yi musulman la daal yàlla wéeku si yàlla bi daal moo fi nekk. xañ na mënuñu ko waaye ñu ngi koy jéem daal di ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu ci rek te yàlla rek tax waaw ndax cet giñ ci wax loo gis sababu la rek boo sababloo rek yàlla jàppale la ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla na ko fi yàlla jële ci kàttanu yàlla suñu borom marché central ak quai de pêche mu doon ñaari barab yoo xam ni ñu bëri dañ fay daje ñu bëri ci askanu Tëngéej nag jàpp ne autorités yi war nañu gën amal doole lu jëm ci wàllu sensibilisation bi ngir nag fexe ba lii di jàngoro ji du fa law. jàngoro bi ak ni mu mel ci àdduna booy xool jamono ji am na lu toll ci juróom-ñaari junni doomi aadama ñu ci faatu téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay réew ñoom la dal mu mel ni nag réew yi jamono ji am na ci ñu bëree bëri nag dem nañ ba sonn sax loof amatuñu benn jumtukaay wala fu ñu mën a dugal seen i nit ñi feebar ngir faj leen euh, lu mel ni France Italie ak Espagne ci ay jafe-jafe la ñu nekk ay réew tamit jël ay dogal yu ëpp doole yi ñu jëloon ba noppi Sénégal moom dooree ko suba daanaka ci minuit dañuy tëj seenu euh, frontière aérienne maanaam avion dootul jógeeti fii di dem foofu wala di ñëw lu toll ci ñeenti réew yu nekk ci Europe ak ñaar yu nekk fii ci mag yu nekk ci Maghreb Aminata Mbaare Sow carte bi di wane dëkk yi nga xam ni Covid 19 daal dina fay egg. daanaka continent yëpp benn muccegu ci ci feebar boobu boobule France di dëkk boo xam ni Sénégal bëri na lu muy lëkkaloog moom nag fu mu toll nii tamit feebar bi daal na leen di sonal bu baax a baax loolee waral seen jiitu réew mi daal di jëlaat mesure yu bees mesure yooyu nag mën nañ ci lim bépp doomu France wala képp koo xam ni mu ngi euh, dund foofule ci France boo bëggee def yenn déplacement yi faw nga adressé benn attestation de sortie mu mel ni ne que déplacement yi dañ leen wàññi bu baax a baax baax ca Italie mu mel ni ñi fa faatu ci wàllu feebar boobule fi mu toll ni ëpp na ñaari junni ci ay nit bu ñu sukkandikoo euh, ci chiffre yu ñu mujjee am le 16 mars di yàlla ci néeg yi ñu passé fële ca Espagne tamit euh, feebar bi nee nañu sonal na leen torop ndaxte ci euh, benn fan rek lu weesu junni ci ay cas yokku nañ ci ñi nga xam ni amee woon nañu feebar boobule mu mel ni nag fii ci continent bu Afrique bu ñu limee de Sénégal ñaar fukk ak juróomi ñaari nit lañu jàpp ni ñoo amee feebar boobule su dee sax ñaar ñi nee nañu faj nañ leen ba wér nañu mu mel ni nag law bi feebar boobule di law ci dëkk bi njiitu réew mi daal di jëlaat ay mesures yu bees bokk na ci mu tëj bépp ligne aérienne maanaam avion yi jóge ca Italie wala ci France dañu leen di tëjal buntu Sénégal duñu fi mën a wàcc mesure yu bees yooyu nag te yokk rek ci juróomi mesure yu ñu jëloon ci biir continent Afrique ba léegi bu ñu sukkandikoo ci carte bi nga xam ni ay service américain ñoo koy suivre de près nee nañu Égypte fi mu toll nii moo ëpp ci ay cas coronavirus toll nañ ci 166 maanaam téeméer bu tekk mu tekku ci Afrique du Sud ak tamit Algérie ca Côte d'Ivoire tamit nee nañu coronavirus daal dina fay ñëw su dee sax nee nañu jiitu réew mi jëlagul benn mesure bu jéem ci tëj frontière am ak dëkk yi nga xam ni euh, feebar boobu lay mu fay law bu baax a baax. Maroc daal di tëj frontière am maritime ak aérienne maanaam yoonu suuf si ak tamit euh, yoonu kaw ci bépp dëkk ngir xeex coronavirus mu mel ni nag feebar boobu lay lëmbee àddina tey jile lu toll ci téeméeri junni ni ay nit nee nañu ñoo amee feebar boobule ci biir àddina gi. jërëjëf Aminata Mbaare Sow xam ngeen ni jamono ji nag yëngu-yëngu yëpp daanaka ci wàllum tàggat yaram la ñu aj ndax jàngoroy coronavirus am na ñu ci yëngatu fii ci senegal am na message yu ñu jagleel askan wi fàttali leen ni feebar bi lu am la teg ci mi ci réew mi ñu fexe ba topp lépp luñ leen wax ngir ñu moytandiku ko Mamadou Fall lañ ci àndal. ñaar fukk ak juróom-ñaari cas yu ñu am ñaar ñi wér coronavirus bi lu dëggu la ci Sénégal pandémie nga xam te ni dafa lëmbe àdduna bi yëpp tax na kon ñi yëngu ci wàllu sport ñu xam leen yëkkati seen i kàddu. chers compatriotes sénégalais. corona feebar la bu ñu war a jël au sérieux raxas suñuy loxo 30 secondes ñun ñëpp nañu ànd xeex ak kon li nga xam te ni moo. lavez-vous les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes. luttons ensemble. contre sa propagation. daan bi lee feebar dafa laaj nag responsabilité gu mat sëkk faaw ñu jàpp ko bu baax bañ ko jaawaleeg grippe wala paludisme. daal na ñi di ko foowee di ko caaxaane daf may jaaxal parce que loo xam ni kenn xamul lu koy faj te du ay du ay affaire ay socc ay sibiru foy yi ñuy wax nii du lool it's something serious. tey ji nag matuwaay yi nga xam te ni moo lay muccal dafa am solo lool daanaka yomb na. waaye lu mënta ñàkk la ci xeex bi ñuy xeex lii di coronavirus. coronavirus nañ ko jël au sérieux nañ xeexat moom di raxas sunu loxo yi di toppatoo suñu bopp di bañ laal sunu loxo yi ak sunu kanam yi ba pare nag respecté lépp li nga xam ne tey jii wax nañ ko ci. lu ci téeméer ak juróom ñetti junniy doomu aadama am bile jàngoro. juróom ñaari junni ak fukk ak faatu ci loolee organisation mondial de la santé xam xamle ko kon wéyub feebar bi lay daal di nay indi njàqare ci àdduna bi sépp fi mu ne nii faaw ñu jël ay matuwaay ci wàllu tàggat yaram boobu leen nag jàpp leen ni UEFA jël na dogal daal di àcc euro 2020 euh, fii lekk euh, benn at euh, ñu ne ci été 2021 lañ ko jàppagum fii lekk ñuy fexe ba jàngoro bi di coronavirus dootul amati wala sax mu wàññeeku bu baax a baax a baax ci àdduna UEFA jëlaale it dogal daal di àcc Ligue des champions ak Ligue Europa mu ngook mu doon pàcc bu yaa bu ñu jagleel jàngoloy coronavirus ci biir xibaar yi dañuy wéy dem fële ca bët Saalum réew mi ak euh, garab yi ñuy dagg ci anam yu jaarul ci yoon rawatina Jalokunda soriwul dara Gàmbi ay trafiquant la ñu fekk ñuy dagg ay xay foofule dañ leen a bett sax ñu bàyyi ko fa daw dem wutali ji Gàmbi ñu ne am na benn enquête bu ñu ubbi ci wàll woowu de dañ ciy déglu du Diallo moom moo jiite benn association volontaire yu nekk foofu foofule ngir sàmm kaaraange wala boog ngir sàmm alam bi ci micro Bakary Konte ak Xaali Jàmme. dama ci guddi lañu bi. waaye bi ñu ñëwee xam naa seen collaborateurs yi ñoo leen siñaale ñu fay seen machines yi comme dafa guddi woon te àll bi dafa yaatu mënatuñu woon euh, gis fi nga xamante ne foofu lañu ñu nekkoon mooy comme fii te ci suba nag ñu xëy ci àll bi pour euh, vérifier ñu ñëw euh, découvrir que ne am na ay casier yu mag yoo xamante ne comme ni ngeen ko gisee euh, dagga nañ leen euh, loolu yëpp amee lu ñu mënta def itam bu fekkee ne sécurité amut duñu duñ ci mën dara ndax ñun euh, loxo kese la ñu yor ak suñuy portable te fu mu nekk nii xale yi mer nañu population yi mer nañu dama ragal lii bu naree continuer est-ce que lii amoon Boffa Bayo du fi du fi du fi amaat parce que ñi koy def ñiy def lii xam da na la wóor ne pare nañu pour pour reyante voilà te am nañu ay ay ay matériel euh, am nañu ay fetel am nañu ay lépp kon ñun loxo kese la ñu yor euh, li ma mën a wax daal mooy njiitu réew mi na xam ne terroir bii di terroir Kabada Dator euh, espace Diallokounda Kanikounda Sar Yaya Madina Fransi dem ba Gambi wax dëgg yàlla àll baa ngi fi waaye ñu ngi koy gor bu baax a baax te solution nag mënu si am lu dul poste de sécurité nekk bi. ñu dem ci département bumbu rawatina commune bu Thiadiaye foofu nag ay jafe-jafe la ci jàng bi ndax benn CM ba fa nekk euh, fukk ci ay classe dañ koo tëj ndax xamatuñu table bon euh, kii di euh, maire ba di ci dolli sax ni leneen lu la jël huit xale yi mooy ëmb yu teel yi foofu ak ñi nga xam ne dañ leen di teel a maye mu di ñaxtu yu mu yëkkati ci 72 heures yu CM boobu boobule ñu bàyyeele ko taskatu xibaar bi di Pape Djibril Fall nekk ci télévision Futur Média Adama Diallo di principal. bu Semtia Ndiaye ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Guèye. thème bi thème bu doy waar ndax fii boo xoolee séeréer yi joolaa yàlla ñun làkkat yi bu ñu amee doom rek suñu sago wala lu ñuy ñaan yàlla pour mu teel am jëkkër balaa mu ñu indil gàcc ci fan moo tax paa ñu joxe seen doom en mais dañu war a xam ni adduna bi changé na ndax boo xoolee ci sama discours wax naa Clara Zetkin ñëpp xam nañu kan mooy Clara Zetkin wax naa a Parks ñoom Caroline Faye ñoom Aline Sitoé Diatta ay jigéen la ñi nga xam ne dañu xaram ba pare dañuy xeex pour au moins euh, euh, seen droit il faut ñu xeex pour seen droit ñu xam ne jigéen du kër ga rek jigéen du pour togg rek jigéen du pour bokk jëkkër rek mu toog rek jafe-jafe mu fi doon na bëri na ndax bu ma ñëwee école bi amul woon dara amul woon dara ndax école bi lycée la woon lycée bi dem mu bàyyi CM bi mu bàyyi CM bi CM bi amul woon dara dara dara dara lu fi nekk ci ci inscription élèves la ñuy dem avec le CGE ñu bind ay ordinateur ay photocopie pour ñu mun ko parce que salle yi moom macha allah am nañu ñaar fukki ak mais salle yi ñu bëri amul équipement. te ñaar fukki salle toog di table ba. dañuy jàll ci ponk bu mujj ci xibaar yi li yëgle kay xëy tey jii léegi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sama boppam la gënal du bañ naa la gi ñuy wax suñu réew di Sénégal ma nga ca bu baax a baax yëral xët mu njëkk soleil national ci kaw pexe yi kilifa yi teg ngir jëre fi coronavirus bi moo waral ñu jël dogalub tëjël suñu jaww ji juróom-ñaari réew li ko dalee suba ci àllarba ji minuit moins une minute dootuñu nangooti benn avion di jóge ci réew di teer si réew mi mbaa ñuy jóge ci réew mi di dem ci yooyu la réew juróom-ñaari réew yooye yan ak yu réewum France la Italie Espagne Belgique Portugal Algérie ak Tunisie le témoigné nañu Sénégal ñàkk na boppam tëj na ay frontière aérienne am suba ci àllarba ji ci lay tàmbali bu minuit jotee journal Les feelu ko xamal ñu ne Ndakaaru samp na ay diggam diggam ak réew yi coronavirus bi wulee ñaay lu dul avion yi ñuy wooye ay vol cargo ak i vol d'évacuation sanitaire dootuñu nangoote ñuy teew ci réew mi l'observateur nañu ay muntaweesu bàyyi deena joote ji ci na ma nga ca ñaar fukki cas doomu France bu toll ci juróom-benn fukkat ak juróom-ñaar juróom-ñaari fan ci mars ci la dugg si woon Sénégal roppalaanub compagnie Liberia moom la jëloon bi muy ñëw ñeneen ñi journal L'Observateur gis ne warees na leen a bàyyi xel ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi mooy gune taalibe yi ndax ñoom it foo yooyu gu ñu foo yooyu tax na seen bakkan a ngi ci xot dogal bi ñu jël jëm ci tere yenn réew yi seeni avion di dugg ci réewum Sénégal L'Observateur nee nañu donte dafay lu munta ñàkk terewul mesure la yoo xam ne du jural jàmm aéroport Blaise Diagne la Sénégal mel ne ku naan ko aéroport Blaise moom ñu fa jël ci dogal rek doyul coronavirus bi jaare ba dugg ci réew mi La Tribune ne ko moo taxit dog nañu tipp yoon wi jàngoro ji jaar ba dugg ci réew mi dootuñu nangooti avion di jóge France Espagne Italie Portugal Algérie ak Tunisie di dugg ci réew mi anki dina kay nañu dogal boobee dogal la bu nar a jural ay jafe-jafe lii di tourisme bi ak fret bi L'Observateur ne ko loolee ci gën a tuuti ndax tëju gi ñu bëgg a tëju bu yàggee lu ñuy dundee danañu të Ousmane Bay di directeur commerce intérieur di xamle ci biir journal L'Observateur ne stock bu réew mi mën a ñaar jàpp ñetti weer am na fi waaye bu ko rombee dafay doy waar tëj yi ci jaww jeeg ci géej gi journal Le Quotidien gis ci ne koom-koom gi di économie bi moo nara a coronavirus ndax bu boobaa ak dund dootu jugeeti bitim réew di dugg ci réew mi te li mu nar a njëkk jur ni ay jafe-jafe mooy ay recette fiscale ki recette douanière yuy wàññeeku Karim Wade ma ca dowa Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne nee na ànd nag président Macky Sall ci dogal yi mu jël te it mi ngi koy rafetlu bu baax a baax Thierno Bocoum jël kàddu gi ci Les Échos nee na président Macky Sall na génnee juróom-ñetti milliards mu amee ni ay fonds politique joxe ko ñu xeex ci coronavirus bi baa mu am lan lu mu ca joxe Sadio Mané joxe na fanweeri million record yéen kay moo ko bind ubbil journal bi xeex gi ñuy xeex Covid 19 bi ci Sénégal tax na footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané yëkkati fanweeri million jébbal ko comité national gestion épidémie corona bi ngir jàppale ko ko ci xeex bi ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ak leneen lu muy xeex muy ñu wër di wax naan coronavirus amul ci Sénégal xeex ba tàmbali naa jurus lëf grand place ni ñu ci ñi ko doon wax ñi ca am lante ak yoon ñoo di Abdoulaye Mbaye Peex ak Salbendom communicateur traditionnel bi Abdoulaye Mbaye Peex ma nañu waaye la tax yàgg fa mooy bi ko gendarmerie laajee li nga foo ko teg dana leen tuub naa wax ji billaahi dootuma ko waxatee keneen ku ko waxoon te gendarme yi woolu ko grand place ne nañu moo di Selbé waaye li ci ñuul moo di moom seetkat bi dafa fa réer kenn xamul fan la nekk te it kenn mënu koo jot téléphone enquête nañu en tout yu section recherche ñoo ngi koy xaar convoqué nañu ko tey ji onze heures ci yor yor Abdoulaye Mbaye Peex moom it ak juróom bi ñu reyen ca Thiès ba muy faatu journal bi nee nañu mi ngi woon ak ëmb bu toll ci ñaari weer libération nañu ki ñuy tuumal ne moo ko faat nangu na ne moo ko def asan Fall la tudd nee na ñàkk pexe moo tax mu rey xale bu jigéen bi ak buum la jël xoje ko ko ba mu jaare ca faatu yéenekaay bi nañu Assane Fall xamal na enquêteurs yi ne dane woon xale bu jigéen bi na bàyyi di wër di wax naan maa ko ëmbal ndax loolee rafetul ci samab der jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak ki ñi ñaandoon ak télévision Futur Média ñëpp ñuy jàpp ci xibaar yi boom mu yemb yeneen i xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.